bàjjal. ah ay góor mais bàjjal nag jàppale leen wax dëgg yàlla. mais jàppale leen si niveau kon ko fi nekkoon. dindi naa ko mu set bi dëkk baa ngi yëngu. yeex na. doon bi ma demati. lu muy xeeñ lan la. gooyab bàjjan li bii mooy gooyab bàjjan. bàjjan international bi mooy gooyab. mbarkala macha allah ñett lay bëgg a dee mi ngi nii. boo ko yónnee numéro téléphone baa ngi nii. mbay boo taalee. bu naqaree. delloo ma sama xaas ma delloo sa gowe. boo taalee bu neexee. boo ma bàjjan gooy gi neex na ma dolle ba leen pot ma mën a jaay. <laughs> mais bàjjan sa gooy dafa neex si boppam. torop maa ngi tëj foire bi. ah ah, ah, ah ñu naan sànq rek yéen a rëggee yeex. waaw ban heure ba ban heure. non ay 10 heures laa fekk. ay 10 heures. ay 10 heures ne ko man fii kees laa nga bàjjee ñi moom foire bi dañ maa sonal barki yàlla. waaye man maay sa bopp. ñu dañ maa sonal. yow mbay ma maa la yar maay sa bopp. waaw nen da nga fa dugg. waaw mi ngi noonu nag nag nag xaar ñoom dañuy xaar. ah dañuy xaar ñoom dañuy xaar kay. mais bàjjen góobe ak lan nga indi góobe rek nga indi góobe rek. man sama njaay yëpp góobe rek la. man góobe kas laay. lii gas mais da ngay passé ay commande waaw dama def ay commandé ay siwo ah, ah. dama def ay siwo yu ndaw siwo yu mag ah, ay kilo ay deux kilo loolu waay bëgg di koy man dama la koy defaat incha allah waaw ñu ñu fàttali ni yéen ku bëgg a jàpp si combat bi il faut ngeen il faut ñu leen di dimbali si li ngeen di jaay mooy dëgg nag dañoo war a dooleel jigéen ñi ndax jigéen ñi sonn nañu jigéen ñaa ngi ci biir kër yi jigéen ñaa ngi ci tool yi jigéen ñaa ngi ci marché bi jigéen ñaa ngi ci foire yi boo duggee ci foire bi ay jigéen doo koy gis xale takku nañu ba dëgër liggéey ñi amuñu buñ leen jàppale nañu dimbale ngir yàlla jàppale jigéen ñi ak góor ñi xale yi ndaw góor yi dugg ci a métti loolu nañ xale yi nañ gëstu xale yi ndax xale yi seen xol yi fees na te fees day am seen ndey yi sonn nañ seen baay sonn nañ ñëpp a sonn dañu jàppale xale yi ubbi usine yi ñu tëj dañ ko ubbi xale yi liggéey ci Thiès Thiès usine yaa ngi tëj xale yi nga am koo liggéeyee loolu teguñu ko fenn xale yi xale yi sonn nañu nañ jàppale xale yi ngir am ñu luñ def ay jakarta la dawal da ngay jàng ba ne at gafa la nga dawal jakarta gafa Touba jakarta moo am ci moo am ci moo am ci réew fi am jakarta bala jakarta yi sax baax na gafa gi gaa baax na mais xale yi amuñu loo xamante mën nañ ko denc mënuñu denc li ñu bëgg tamit doomu la Dèjà doo mu jeex la. kii maa ko laabaan. borom góoy yi kii maa ko laabaan muy góob. de lu ne la. góoy yu xeeñee ni parfum man tamit xamul lu dul liggéey. ren opération xar la def. barki yàlla. femme noire femme africaine. femme géniteur. femme bien. <laughs> les tous les femmes daal elle bien. ba pare nga jëm publicité sama xarit. taxawaay seet naa ko mais Bébé Sy sa taxawaay seet naa ko. foo nekk li la la. li neex na de li nga këpp nii. ba nga taxaw ba tey maa ngi naan la baytu la këpp nii. oh. jaay ma huile ma def si. waaw. may dañoo nekk kër ah? dafa war a neex. ah xam nga mosee pare kër ko ko ànd ko ci ànd bi kër ga pàcc. wala dute dute ngay xëy dute. ngay xëy dute wala màkk doon a paaya. ah yenn saa ko war a mu xoolal mu lay xëy bër bër bër wala kew wala bëgg. yéen nañ ci bëri xanaa xamoo xet jigéen. day togg day togg ba si go euh, kii euh, da lay togg ba si togg togg. mais boo boo toggee ba pare da nga war a sangu def lu baax. <laughs> yenn saa yi nga toog muy xëy fu dëkk. bala ngay xëy macaron. am na ñoo xam bu ñu la rombee 15 rek la ñuy xëy 15. baalu ni. bébé foo nekk. ah foo nekk. lépp laa am am naa yére am naa màdd am naa lépp xaaral ma ñëw ci moom si laay dem. jaay nañ dem. ah nga ni am am nga lan. am naa lépp màdd yére daal saak takos lépp laa am. ah takos. lépp jaay takos. non mhm. Mhm. kii nag sama sponsor la daf maa war a takkal perruque maa ngi ñëw. <laughs> jëmbal merci beaucoup Mbaye Pacah Mbaye Pacah Mbaye Koutia Mbaye ay Mbaye Mayel Mayel Mélangé Mbaye Mayel Mélangé xoolal Fifi Fifi non Fifi man jaaxal nga ma quoi bàyyi ma fi di jaaxal nga moom. ah fi kii Sida xam nga Sida. xam naa ko Sida Sida sama xarit la ah. man da nga koo fan. ah da nga koo fan. laa ilaaha illallaah. maa ngi nii jërëm. waa Sida lii la la. collage. ah day may karaw day may wéy. day may day day dafa boobu. sama makna ah tahu aja jadi apa ah iya lah di mata mata pasio ini mata pasio lah Moi, j'ai jamais gagné. Il 2000 francs. Ah, il 2000 francs. parfois, il y a un élève. Ah, moi, j'ai gagné pour les singles. Moi, j'ai gagné pour

waaw waaw jaar Dubaay indi ay bagages. da nga koy jël wax si ñaari kàddu. <laughs> ah première dame. ah première dame waaye. ah. ah. waaw may. Ah, ah, yaay xam naa ne. géwél. géwél foo ko fekk day wax lu baax. waaw dëgg géwél day def lu baax. dëgg la géwél def lu or. may gàcce géwél parfum lu xeetu baax géwél ko moom waaw dëgg neexul moo tax indi nañ xeetu baax baax yaa ngi nii ah. cuuraay ah. ah parfum de chambre yi ah. euh, parfum de corps indi nañ ay diffuseur ah si abbaay yaa ngi nii saak yaa ngi nii bubu sañsa ah Arab Saoudi la jógee jëndal lépp mën def

ma 26 am naa fa boutique euh, unité 26 ci côté poste de santé bi rek poste de santé unité 26. jaajëf merci beaucoup. mais première dame. waaw Mbaye ah yaa ngi ci. waaw maa ngi ci de. waaw maa ngi jàpp ci bagage yi daw si gaaw ñëw. ah ma na gars yi daw si ñëw jàpp ci affaire yi. Ah. bagage yëpp a fi. way moom wax wax dëgg yàlla boutique ba lépp la roon ñëw andi ku bëgg lu baax rek ay senteur yoo xamante ne amul fenn ay xew ay abaya kolu ay kolu astu yëpp am na na ñëpp ñëw dox si faar bi daal ñu rek la da wax comme ni la ko waxee rek lépp am na gan mi senteur textile bàyyi ajee ngi noonu kon gars yi trois jours yi fii lay neexee gan mi senteur textile bay bëgg naa Abdou Salam Abdou Salam <laughs> facteur textile. waaw Abdou Salam. Garmi Garmi santé textile moo nekk nii. ndeysaan Dubaay yi ngi nii. mooy taw El Hadj Oumar Garmi di sama mag. walaay ndeysaan. ana aji. dama ni kaay kaay jàkkaarloog Abdou Salam Mbaye. ñu lay géwél lañu. lu génnul fii baaxul. ñu lay géwél lañu ay géwél ngeen day baax. ñu lay ay géwél biir parce que maam Karafa. Garmi ngi nii. waaw xam nga ne xam nga ne xam nga ne ah. lii ma Ah, waaw waaw lépp a ngi fi lépp produit cosmétique sac daal pochette accessoire yére lépp xam nga yow sa produit yi dafa que sa xol su rafetee loo jaay lu la mën dégg nga waay waay lii la la lii la la lii savon la sinel waay aloe vera la day dindi rougeur dindi lunette dindi bépp tache bu nekk ci kanam te damay wante 3000 laa ko jaay moitié prix bu jeexee jeexee. mais dafa am sax tàngal. waaw lépp lépp jëlal ma jëlal. da ngay ñëw jënd rek tàngal naan mais parfum yi dund na neex. ay ut yu doy waar. ay ut la waaw waaw. mais même sa soos bi dafa rafet. waaw lépp rafet lépp lépp. mais bàyyiwuma sax. Saat Mbay daa jàngal soo ci biir foire bi biir koto ensemble góor yi lépp a ngi fi pas cher surtout jigéen cherul yomb ba bëgg a dee vingt mille ak ah, t-shirt cinq mille wanteer wanteer man Zal Mbay nee na ma bàyyi ko nag bàyyi Zal Mbay mooy jàngal kalson bi nag ci foire bi xamee leen ko Zal Mbay ngi noonu ci foire bi di jaay kalson jigéen ak kalson yu weex nee na loo ñaq mu naan Samba. tey jëlal ku bu baax nag. ndax ki ngay yu am maanaa. waaye waaye. jabari waaye sa jigéen. ay t ay sac de marque yu am classe. ku bëgg lu baax ku bëgg marque ku bëgg lu am ku bëgg sa set sa yaram set ñëwal fii ñu ngi leen xaar mon ami Mbaye <laughs> Touba oh, Cheikh Kouti mais Kumba da nga ñëwaat ah, dama ñëwaat ah, ah, waaw bi ñëwaat indi lu bees baax. waaw waxoon ko naa ko gis nga. waxoon bagage si na. na xale yi daanu si. waaw dama ñëwaat nag sama sama be ñaari sœur ma si boole nee na jaw madame Ndiaye Cheikh Kourkoumba ak Ami Collé Collé naa ba. may egg si yi wàcc si na yi daanu si.